ndax dafa am loo xam ne ku mu doyul leneen dootu la doy waaw waaw ba defee kon nag ñu bàyyi xel ñu ñuy neexal di leen wut lu ñu leen di kiye moo tax ñu toog ba biig ci guddi ñu ñu téléphoné ma vingt-trois heures naan ma waaw euh, le premier ministre yónnee na fi ñaari nag ak ñaari gëléem ñun lu ñuy doyee ñaari nag ak ñaari gëléem dama leen di laaj rekk mbooloo mu toll ni ñaari nag ak ñaari gëléem lu ñu yónnee feneen duñ ko wax ah ñu waxoon yëpp yëpp dara defuñu ko kon nag ngeen jàpp loolu xam ni ci xeex ak ñun lañu jëm mais ñun it pare nañu waaw waaw bu ko defee kon nag bala ñuy yegg foofu dinaa wax ak sama maam ba ca Touba parce que moom rek l'a fi am comme allié waaw moom rek l'a fi am comme allié tellement sincère tellement ouvert moo tax lu may wax ak moom mën naa wax mais à part foofu nag Covid 19 waxuma ci dara waaw waaw Covid jeex na bu yàgg waay du dëgg ah